إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا معاشر الإخوة المؤمنين في هذه الصبيحة المباركة من هذا العيد وهو يوم النهر يتوجه الحجاج إلى منى لرمي الجمر الأقبة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا معاشر المؤمنين في رسول الله أسوة حسنة mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokk yi ci yàlla ci suba gii suba gu barke gii di bisub tabaski nekk bés ba ñuy rendi gàtt yi la ujaaj yi di bàyyeekoo musdalifa jëm mina pour sànni jamra al aqba kama faala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yonent bi defee woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ajee yendu arafat fanaani musdalifa bi mu xëyee suba mina la jubal sànni ji jamra daa di tabaski te mbokk yi yonent bi mooy suñu royukaay tey li doy waar ci xeet wi soo nee yonent bi rek tension yi daa di jóg ñu ne diw nag mag ñi nag ñoom sàmbaak ñoom demba mbokk yi yàlla waxul ci alquran walakum fi rasulillahi uswatun hasana yonent bi alayhi salatu wasalaam moom la yàlla yónni ya ayuha alladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasul wattaqullah loolu la ci sunu borom teg yéen ñi gëm yàlla bu leen jiitu yàlla akub yonent sallallahu alayhi wa sallam bi mu taxawee arafa ca suba sa dafa xëy daal di julli te yonent bi mooy sunu royukaay moom la nu yàlla royloo balaa nuy roy kenn allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila ibadallah asbaha al idul adha mushkila sunu xutba mooy tabaski léegi problème la nekkatul jaamu yàlla nekkatul santaane yàlla tabaski tey problème la ak aada lu tax tabaski nekk problème ab ak ay aada fukki tomb ak juróom yu ñuy wan tey ne tabaski tey nekkatul jaamu yàlla problème la tabaski nekkatul jaamu yàlla aada la kañ la tàmbali jóge ci jaamu yàlla nekk problème munzu an asbaha ismuhu idul kabir keroog bañ ko tuddee feet bu mag bi keroog la tabaski nekk problème nekkatul léegi tabaski feetu tabaski waaye léegi feet bu mag bi keroog bañ ko tuddee feet bu mag bi keroog la problème yi tàmbalee munzu an asbaha an saara zabhul uduhiya aada ijtimaiya wa laysa sunna min sunani lislam ibada a taqarrubu ila allah ñaareel bi li leen di wan ne tabaski problème la mooy keroog ba tabaski xëyee nekk benn feet boo xam ne société bi léegi ñoo koy feetu di ci bëgg di ci kontaan di ci yaataa yimbe ñu jëlee ko ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam jëlee ko ci yoonu lislaam keroog la tabaski xëy nekk problème keroog ba ñu jëlee tabaski jaamu yàlla di farfarloo ñii naan tey laak suba nga gis ponkalab jullit bu ne lëmm yeew xaram naan waaw dinaa julli ji ba ñëw mais ginnaaw suba laa koy rey quoi mel ne moom moo moom xar mi mel ne xar mi nekkatul jaamu yàlla keroog la tabaski xëy nekk problème ibadallah munzu an saaral xaruuf yustara min ajli al atfal wa laysa min ajli taqarrubi min allah keroog ba tabaski nekkee problème mooy ba waa ji di jënd xar ànd ak soxnaam ci kat katam ànd ak ay doomam boot ay loxom ci ginnaaw naan soxna si xoolal bu la neex waxaaleel boo bëgg rek ma daal di jënd léegi nekkatul ngir yàlla nekkatul jege yàlla léegi pour soxna si la ak xale yi tabaski daal di xëy nekk problème au lieu mu nekk ngir yàlla déedéet bu ma tabaskiwul bu ma tabaskiwul soxna si bu ma tabaskiwul xale yi bu ma tabaskiwul dëkkandoo yi bu ma tabaskiwul mbokk yi démb ñu ngi may nettali benn tailleur boo xam ne daa toog ci machine am rek di ñaw yor xaalis ñu naan ko demal jëndi mu naan dinaa jënd demal jëndi dinaa jënd demal jëndi dinaa jënd tabaski bu yàgg la woon mu xëy nag léegi fajaru tabaski ne day dem jëndi fekk xar yëpp jeex mu war ba sonn daal di ñibbisi ay midi soxna si ne ko ana xar mi mu ne ko xar yi de dañoo jeex mu ne ko maa ngi jël samay bagage maa ngi dem suñu kër toog bis boo indee xar rek nga téléphoné moom ma ñëw tabaski nekkatu léegi ngir yàlla ngir soxna yi la ngir doom yi keroog la tabaski nekk problème nekkatu léegi pour jege yàlla te xam ngeen ne bisu tabaski bis la boo xam ne seytaane day mer moo ki mbokkam moo tax ñi am rab yëpp tabaski dañuy feebar ñii dootuñu sawar ñi dañ naan duma lekk yàpp tabaski ñi naan man duma ci solu tabaski ñi am ay rab yëpp dañuy tëdd parce que lu tax seytaane yi ñooy mer li ñuy tuural yàlla ci deret pour jege ko sey xam ngeen ne seytaane yi dañoo bëgg deret moo tax soo feebaree boo demee ci xàmbukat yeeg ndëppkat yeeg buxaaba yeeg seetkat yi dañ naan nañ ko tuural deret deretu tey deretu yàllaa ko moom waaye kenn amu ci wàll mbokk yi tabaski problème la kañ la commencé nekk problème munzu an saara laxmu yuxba fi sallaja wala yuwazza ala alfuqara wal yatama keroog ba ñuy rey tabaski di jël xar mi di ko roñ di ko dugal ci firgo yi kenn dootu ci jox miskin yi kenn dootu ci jox faqir yi kenn dootu ci jox ñu ñàkk ñi keroog la tabaski nekk problème léegi pour congélateur yi la ak firgo yi genn wàllu xar mi yëpp def ko ci firgo bi ah ndànk-ndànk parce que xam nga town bi dafa metti dëkk bi neexut affaire yi dafa jafe après tabaski yàpp day nangam jël génn wàllu xar mi yëpp tëmbal ci firgo bi ñu bàyyi miskin yi ci loxoy kese sallallahu alayhi wa sallam de deful woon noonu ndeysaan moom nu roowul ak nun moom keroog ba mu yeewee xaram dafa xalaat xeet wi ndeysaan mu daan ne man dey duma tabaski man kenn sama xeet ñi ci tabaskiwul sax dinaa leen yóbbaale mu ut beneen xar muy ñaar mu rendi basam ba pare ne yàlla bii maak sama waa kër la mu rey beneen bi ne yàlla bii bépp jullit bu nekk ci àdduna te amoo dugal naa la fii ana ñooñu tey ndax yonent bi du royukaay ndax du moom la ñu yàlla xoolloo woon tey ñeneen la ñuy xool ñeneen la ñuy déglu ñeneen ñooy wax ñu jëfe waaye boo nee yàlla nee na yonent nee na ñu ne waaw diw nag ixwatal iman keroog ba tabaski nekkee problème mooy bañ jëlee yàpp yi di ko denc ci frigo yi daa di koy xañ miskin yi lu dul rek jëlal fàllale fàllare ndey joor nga jox ko ñoom diw ak diw ndax ñooñu suñuy mbokk lañ allahu akbar jëlal pooj bi jëlal tànku ndey joor tànku càmmoñ fàllare yi nijaay pooju njëkke baatu jaam der bi boo paree nga jaay ko keroog la tabaski nekk problème parce que nekkatul ngir yàlla ixwat al iman munzu an asbaha al faqir al gayr qadir shira al uduhiya mahalan li suxriya keroog ba tabaski nekkee problème mooy ndeysaan bi nga xam ne ki nga xam ne amul da daan toog ne aw ma ndax jaamu yàlla la waaye déedéet léegi da koy jaral mu fen da koy jaral mu rambaaj da koy jaral mu naafiq da koy jaral mu sos da koy jaral mu dóor mart pour am xar mu mu yóbbu këram balaa ne damaa am gàcce mënumaa tabaski waaye démb lislaam ay sahaaba dañ daan xëy tabaski wuñ fàttaliku ngeen bilaal xëy na bisu tabaski ndeysaan daa di ñëw yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko waaw yaa bilaal ndax tabaski nga mu ne ko ah waaw tabaski naa de mu ne ko waa bilaal yow rooray mu ne ko séq yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan ne zabaha al muazzinu al muazzin waay waay ndeysaan noddukat bi de moroomu noddukatam la daa di rey xam ngeen ne séq day noddu fajar day yuuxu pour nit ñi yeew moo tax yonent bi daan ne bilaal a noddukat bi day noddukatu moroomam la tabaski xoolal bilaal keroog séq la tabaski séq nun comme amunu keroog ba tabaski nekkee problème mooy ki amul mu latul toog foog mu jóg foog mu wër foog mu fen foog mu sos foog mu foog mu foog mu foog mu fen nangam nangam nangam nangam pour am xarum tabaski keroog la tabaski xëy nekk problème juróom-benneelu tomb lu tax tabaski nekk léegi problème mooy asbaha al iid fursa lil istirad al qudriya al sharciya wa tabahi bi hajmi al udhiya tabaski tey démonstration la démonstration kese démonstration la force jëndal leen ma xaru un million yeewal leen ma ko ci buntu kër gi jaaral mag moom ci mbedd mi sax 24 heures avant ñu koy rey bàyyil ba bëccëg suba la tabaski nga wàcce xar mi ci taliba oto bi sax bu mu koy indi ba ci buntu kër gi wàcce ko ci digg mbedd mi waaw nañ jàpp buum gi na nga wër ak moom tuuti koñ bi démonstration pour koñ bi xam ne du ma seen morom xar mi ma takk xar mi ma yeew kenn amu ko tey tabaski démonstration la au lieu mu nekk jaamu yàlla waaye tey lu tax mooy démonstration di wanewu ku nekk di wane nii laa toll lii laay def lii la lii la lii la moo tax tey tabaski nekk problème ibadallah juróom-ñaareelu tomb lu tax tabaski nekk problème asbaha lahmul udhiya juz'un min jalasatil xamriya min al iid allahu akbar keroog ba tabaski xëyee nga gis waa ji tabaski day teg yàpp tabaski ak kaasu sàngara su coppatee ci yàpp tabaski bi lekk daa di koy mottalee guuxub kaasub sàngara keroog la tabaski nekk problème tey boo demee léegi léegi fii yëpp ci kanam ak suba ak ginnaaw suba saal yëpp day fees sàngara ba mu fees dal yàpp tabaski la ñuy lekk sàngara lañ koy reesalee keroog la tabaski nekk problème tey jii bu ngeen xoolee panneau publicité yi ci dëkk bi lépp sàngara la dëkk bi yëpp ay panneau publicité la ñan ñooy naan sàngara si 95 pour cent musulman su fi sàngara jaree ñan ñoo koy naan 95 pour cent musulman su fi sàngara jaree ñan ñoo koy naan loolu mooy laaj bi kon jullit yi ñoo koy naan su fekkoon ne jullit ñi naanuñu sàngara kon société bi tëj na bu yàgg waaye société bi boobu ba léegi mu ngi dem kañ la tabaski nekk problème indama nasiya nnaas anna al iid fursa li taqarrubi ila allah wa tawaasi wa tasaafuh wa tasaamuh wa tagaafur wa ziyaara keroog ba nit ñi fàttee tabaski pour jege yàlla la tabaski pour jokkoo la tabaski pour baalante la tabaski pour nuyonte la tabaski pour jéggalante la tabaski pour ziyaarante la keroog la tabaski nekk problème léegi tabaski du pour yàlla amul jokkoo atawaas déedéet aw ma temps du ma fi jullee sax doo jokkoo kenn amul tasaafu baalante ak bu njëkk ba dañuy dugg ci kër yi baal leen maaq baal naa la dëkkandoo yi fu nekk koo dajeel baal maaq tey loolu jeex na wata saamu jéggalante baalante wa taxaafur jëlalante wa ziyaara dem ziyaara ji mbokk yi tabaski loolu la woon waaye day da ngay gis ku ne yónnee naa leen xar mi quoi garaawul yónnee naa leen ko rek mënu maa julli si aw ma seen temps temps bi business bi dafa metti waaye moonin bi nangam nangam allahu akbar mbokk yi juróom-ñeenteelu tomb bu leen di wan ne tabaski jafe-jafe la problème la mooy munzu an kull musril bi nafsi wa yuxliqu baabahaw keroog ba tabaski ndeysaan ñu daan ubbi buntu kër yi tey waa ji day rey xar mi ne tëj leen kër gi tëj leen kër gi gars yi daal di daw tëj kër gi njëkkante ku fëgg ñu ne bu leen ubbi de yàpp dong lay ut si moom ndax tabaski nekk problème waa ji dong ak xaram ci biir këram ak ron la la mag ak soxnaam waaw ñi dañoo mën a nuyoo trop te amuñu temps bu ñu kenn lakkal waaw bul maye de bul saraxe de dugalal lépp ñi dañoo mën a wundeelu keroog la tabaski nekk problème fukkeelu tomb lu ñuy wan ne tabaski problème la munzu an asba juldul udihe yu baa keroog ba ñuy tabaski di dajale der yi nga gis benn koñ boo romb ñu ngi jal ñu ngi jal der yi ba mu mel ne montagne suñu paree di ko jaay keroog la tabaski nekk problème jaay deru tabaski bopp baatu tabaski kii fees moo ko moom pooju ndeyjoor gorobee ko moom pooju càmmoñ njëkkee ko moom faar yi maambee ko moom keroog la tabaski nekk problème ixwatal iman fukkeelu tomb ak benn munzu an saarat maazamul mudaxirat tusraf anil lahwi wa taraf keroog bañ defee tabaski feetu fo ce soir au cosaan nangam ce soir au yënguleen nangam ce soir au grand théâtre nangam xale yu jigéen yi meesu sol yu bon xale yu góor yi paa yu ñàkk fayda yi ci làmb ya grand place yi keroog la tabaski nekk problème nekkatul léegi jaamu yàlla waaye folo taraf tiitaru soirée yi léegi ngeen gis soirée yi commencé artiste bu nekk ci stade wala ci benn salle ñan ñoo fa dem julli gi keroog la tabaski nekk problème fukkeel ak ñaar bu ñuy wan ne tabaski problème la an saarat keroog ba ñu xëyee di julli ji tabaski imam bi julleegul gars yi daal di ñibbi rendi xar yi waaw waaw ah yéen de rendi ngeen ah garaawul dee la tabaski yàlla dina comprendre keroog la tabaski nekk problème sallallahu alayhi wa sallam da daan rendi bu rendee ba pare ne sahaaba yi rendi leen moo tax ci mazhabu malik ngirum malik ñu ne képp ku julli ci juma nga dem rendi imam bi rendiwul yow am nga yàpp waaye amoo tabaski waaw barki dem bu benn waay nee na ma ci juma ji ñuy jullee nii fii ma taxaw mu ne ma daaw dañoo gajj sama loxo parce que jigéen ñi dañoo bëgg a génn ne dañuy toggi ma tëj porte bi ne ba imaam pare mu ne am na ci koo xam ne dafa gajj sama loxo bi cicatrice yaa ngi nii ñun ban aduna la nekk ñun ban aduna la nekk war nañu laaj suñu bopp ndax dëgg-dëgg ñun ay jullit lañ loolu war nañ koy laaj suñu bopp ndax ñun ay jullit lañ su tabaski jotee rek ñëpp sol seeni garam bu ñëw toog ak seeni kaala ñëpp muuru ñëw toog nekk jullit bu ñu sëlmalee ñëpp nekk ay yéefir wala ay bidaamaan wala ay sirkkat dootoo xam ne ñi julli ji woon ak ñi ñan la kii ma dajaloon ci jumaa ji moom laa dajalawaat nii ki ma gisoon ci jàkka ji dend ak moom sàppe moom moo nekkaat nii xale bu jigéen bi muuru woon moom laa gisaat nii allahu akbar mbokk jullit yi bu nu nax suñu bopp olof yi nee nañ ku noppi nax sa bopp sa aajo fajo mununu nax yàlla mununu nax yàlla da ngay nekk jullit rek imma shakiran wa imma kafura da ngay nekk ab julit wala nga nekk ab yéefér mununu nax yàlla afa tuminuna bi baadi alkitab wa takfuruna bi baad fama jazau man yafalu zalika minkum illa xizyun fi lhayati dunya wa yawma alqiyamati yuradduuna ila asaddi alazab wa ma allahu bi gafilin amma taamaluun yàlla nee na bu leen diviser diine bi bu leen gëm li bàyyi lii yàlla mi la ne nga tabaski moo moom xar mi amoo droit xarum tabaski nga ciy def lenn lu la neex lu dul lu yàlla lu neex yàlla xarum tabaski ñetti atte la am kulu wa tasaddaqu wa daxiru lekk leen saraxe leen denc leen lekk leen saraxe leen denc leen lii mooy xarum tabaski mooy xarum tudd ñoo bokk àtte ñoom ñaar li xarum tudd di bañ moom la xarum tabaski di bañ li xarum tabaski di bañ moom la xarum tudd di bañ waaye xar yooyu yëpp tey génne nañ ci yàlla tabaraka wa taala xar yëpp génne nañ ci góor ñi xar yëpp ci jigéen ñi la nekk jigéen ñi tey ñoo jiite kër yi paa yëpp wala genn wàllu kilifa yëpp léegi jigéen ñi ñooy sol caay paa yi woddu mbokk jullit yi fukkeel ak ñett buy wane ne tabaski jafe-jafe la mooy munzu an asbah lahmul udu ya kamiya léegi xaru tabaski au lieu mu nekk yàpp ngir yàlla léegi waaw ñaata kilo xar mi ñaata kilo la peese xar mi moom nu mu toll ñaata paan la indi leen ñu xool geres gi nu mu toll nan la pooj yi toll ah xar mi de liñ ci financé dëgg-dëgg munoon naa ëpp nii tey loolay problème au lieu xar mi nekk ngir yàlla léegi xar mi yàpp rek la ñuy xool yàpp nekkatul ngir yàlla te yàlla dane woon lan yanaal allah luhumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum yàlla nee na soxlawuma yàpp bi soxlawuma deret bi li ma soxla mooy ragal yàlla gi tax nga koy rey ixwatal iman fukkeel ak ñeent mooy arriya wal isra wal izhaar al qudra tey xarum tabaski ngistal la ngistal pour gis leen ma dégg leen ma maay sàngam maay diw sàngam palaasu sàngam laa jëndee xar ñoom diw sàngam ñoo ma jaay xam nga man du ma dem daral daral lan dara rey mu dee moo fa nekk place sangam laay dem man foofu la VIP nekk VIP xoolal jaamu yàlla ñu ne VIP xaru VIP xarum nangam wallahi xaru cinquante mille ak xaru cent mille ak xaru un million buñ ko rendee fees ko dugal ko ci cin bi daal di yekk teg ne la bismillah yàpp baa ngi nii wallahi yàpp bi amul changement yëpp a yem kon nañu yàlla tax a jóg nañuy jaamu yàlla ngir yàlla wa ma umiru illa li yaabudullah muxlisina lahu din hunafa yàlla nee na santuma leen lu dul na ngeen ma jaamu te jaamu gi na ngeen ko sellal na ngeen ko def ngir man rek amul keneen mais tey Sénégal dañoo bañ jaamu yàlla ak yàlla ak kuy wax sax loolu ngay wax bu neexee yàlla ak diw yenn saa yi sax ñu bàyyi yàlla ñu ne bu neexee diw yenn saa yi sax barke diw ngay dégg maanaam yàlla moom dañ koo seppi ci réew mi ba moo tax moo tax ñu am problème moo tax ñu am jafe-jafe wallahi réew ay jullit munuñoo baax munuñoo dund ci àdduna jàmm ëllëg àllaaxira ñu am ngërëmal yàlla lu dul dañoo dund ni yàlla bëgg lu tax wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka wa nahsuruhu yawma alqiyamati ama yàlla nee na li ma indi su ngeen ko fi bàyyi rek dund dund bu metti moom la ñuy dund tey dëkk baa ngi ni lu nekk nee nañ am na fi am nañ am nañ pétrole nee nañ nee nañ am nañ jama nee nañ am nañ or am nañ zirco am nañ fer am nañ phosphate am nañ am nañ fan la feeñ ci dund dund bi fan la feeñ lu tax dañoo bàyyi yàlla feeg jubóowuñoo ak yàlla yàlla day jël ay ñoo xam ne karwaas la ñu yor di ñu karwaase di ñu yar ndax kat loolu la yonent bi wax nu ngeen mel rek yàlla nee na ma indil leen nit ñu mel noonu ñu jiite leen yonent bi nee na sinfaan min ummati ida salahu salaha annaas wa ida fasadu fasada annaas al umara wal fuqaha ñaar ci xeet bi bu ñu baaxee ñëpp baax suñu bonee ñëpp bon ñu ne yonent bi ñooy ñooy ñan mu ne al umara mooy njiitu adduna yi wal fuqaha ak borom xam-xam yi su njiit yi bonee borom xam-xam ya bon dëkk ba yëpp yàqu kenn dootul déggal kenn mbokk julit yi mbokk yi ci yàlla nan leen tuub dellu ci sunu borom subhanahu wa taala jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu ñoo ngi jéggalu sunuy kàddu di leen jéggalu aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu alhamdulillahi wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu ddin walaw kariha alkafirun ibadallah أيها الأولياء أيها الآباء والأمهات yéen kilifa yi yéen baay yi yéen ndey yi jëlaat leen seen responsabilité ci seen i njaboot na ngeen yëg ne dund bi ngeen dundoon dund démb ak yaru démb tey wuute na tey ay nit yoo xam ne yahuud yee leen ngemb ak nasaraan yi ñoom la ñu tasaare ci réewu jullit ñi ak programme boo xam ne lii seen yéene mooy bu kenn nekk jullit ñii nañ nekk ay franc maçon ñii nañ nekk ay góor jigéen ñii nañ nekk ay guine ñii nañ nekk ay footballeur ñii nañ nekk ay mbër ñii nañ nekk ay musicien ñii nañ nekk ay théâtre kat bu kenn nekk jullit tey programme bi ñuy dund ci sunu réew day tax jullit du nekk jullit yar bi ñuy yar sunu doom day tax sunu doom yi du ñu nekk ay jullit góor ak jigéen xool leen Sénégal tey kenn ci ñun du xëy gis jigéen joo xam ne gisoo awraam jigéen joo xam ne jàkkaarloo nga ak moom gisoo awraam loolu jeex na ci Sénégal saa yoonee jigéen sa bët ne pat da ngay xoolaat suuf parce que ay awra rek ngay gis. mbokk yi xale yu jigéen yooyu xale yu góor yooyu bàyyi seen tube yi kenn du ko takk kenn du koy yeew ci seen i ndigg foo gis ay xale yu góor ñu ngi yëkkati tube yi ñu ngi bën nopp ñu ngi sol ay peew yëre góor jigéen ay dàllu góor jigéen te setu góor jigéen mbokk yi xale yooyu fu ñu jógee kaw asamaan xale yooyu fu ñu génnee ci biir suuf xale yooyu fu ñu génnee ci biir géej xale yooyu ci sama kër ak seen kër lañ génnee ci sama kër ak seen kër yéen ñii toog foofu la ñu génnee te ñun ñëpp ñu nekk ay jullit yàlla nañu ci alquran qul inna alxaasirin allazina xasiru anfusahum wa ahlihim yowma alqiyama ñi perte mooy ñi nga xam ne dañ leen dajeeg man ëllëg yowma alqiyama perte seen bopp perte seen njaboot yëpp ñu dugal leen safara borom bi tabaraka wa taala ne ya ayuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran wa quduha annaasu walhijara عليها ملائكة غلاظ سداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ee yéen ñi gëm yàlla musal leen seen bopp safara musal seen njaboot musalal sa bopp safara musal sa njaboot boo yeewoo fajar di julli ji au lieu nga jàpp ci sa njaboot dem jàkk kurus gi ngay jël yóbbu jàkk kurus gi nga bàyyi xale yi tëdd kurus lu muy wuti jàkk ñi waroon dem ñi nga waroon jàpp ci seen loxo yóbbu leen ci jàkka ja ñoo ngi tëdd di nelaw qu anfusakum wa ahlikum naaran musal leen seen bopp safara musal seen njaboot benn waay dafa dem jàngi Europe ñu détourné ko mu daal di murtat nekk yéeféer jullit la woon ndey ak baay jàng ba am bag dem bitim réew ñëwaat nekk yéeféer mu tëdd di nelaw julli fajar jot papa ji dégg salaatu jot def lépp néeg baa ngi tëju papa ji fëgg ko diw mu ne um mu ne ko jógal julli mu ne ko laa ikraha fi diin diine kenn du ci forcé nit papa ji ne ko qu anfusakum wa ahlikum naaran musal leen seen bopp safara musal seen njaboot jógal ñu julli ji noonu la borom kër di mel borom kër day am fulla ci biir këram soo bañee ku la mere wallahi yàlla dina la mere xale yi mer ndaw si mer moo gën yàlla mer de meru yàlla xajul ci nit te ba ca tegu mooy yàlla kub yonentam ñoo war a kontaan fa allahu wa rasuluhu aqu an yardu in kuntum muminin yàlla kub yonent ñoo war a kontaan keneen ku mer affaire am la rabi adanaan wax laytaka tarda wal anaamu xidaabu yàlla soo kontaanee ku mer affaire am la yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal na yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko noo ngi ñaan yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu barab bi yal na ko yàlla sàmm kii ñuy xeexal ci barab bi mu bëgg a toj barab bi def ko centre commercial yal na yàlla wañ loxoom yal na ko yàlla gindi yal na ko yàlla jubal yal na ko yàlla woon dëgg mu wërsëgal ko mu topp ko yal na ko yàlla woon neen mu wërsëgal ñu mu sori ko ay jullit fu ñuy jullee nga ñëw nan da nga koy tabax di xëccoog ñoom mbokk jullit yi su loolu pare yéen ñi julli si yëpp dan daa nekk fi ak ay jullit yoo xam ne ñoo ñoom ñoo bokk barab bi ñenn ñi nekk suñuy dëkkandoo ci koñ yi ci kër kër yi ñooñu tey génn àdduna bàyyi ñoog seen njaboot tey ñun ñu ngi feet ñoo ngi solu am nañ ay xar am nañ lépp ñooñu amuñu kenn ku nekk ci ñun loo fi indaale woon te mun ko fee bàyyi nga joxal ma ko borom zile yu zone yi ñu indil ñu ko fii bu ñu paree julli incha allah ñu dem séddale ko mbokk yooyu am na ay mbokk yoo xam ne aussi caravane Casamance lañ jëm rihla daawa chaque année bu école tëjee danañ jóge fii dem Casamance dugg ci biir Casamance bi yëpp woo nit ña ca yoonu yàlla ñooñu tamit yóbbante nañ ma de dañuy dem lundi bii di ñëw kon vendredi ku am yére ku am ordre javel ku am sànke ku am saabu ku am ku am ku am lu ñu am incha allah ñu indi ko fii ci jumaa ji dinañ ko def ci ay oto incha allah yóbbul ko mbokk jullit yooyu ñuy fekki Casamance bi iznillahi tabaraka wa taala allahuma igfir lana qabla almawt warhamna inda almawt wala tuazibna ba'da almawt bi rahmatika ya arhamar rahimin اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ñoo ngi ñaanal yàlla tabaraka wa taala ki ñu tabaxal barab bi ki nga xam ne moom moo def lii ñu ngi koy ñaanal yàlla mooy alaaji góor a yal na ko yàlla sàmm autorité yi nga xam ne aussi dañoo julli si ak ñun te xàmmewuñu leen wala gisuñu leen ñu ngi leen di ziyaara di leen ndokkeel di leen jéggalu di jéggalu mbokk jullit yëpp di wax ñëpp baal leen ñu àq baal nañ leen yal nañ yàlla boole baal yal nañ yàlla may nu fekke ne ngeen ni déwén asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu
Gracias.